nga xam ne dañu koo jagleel ndaw ñi fukki fan ci weeru avril moom njiitu réew mi di président Macky réew mi quotidien di ñu xibaar naan lu toll ci trois yoo xam ne moom la fas yéene génne ngir nag jagleel ko ñi nga xam ne ñooy ndaw ñee yéene kaay gi nee na Macky Sall ak manifestation yi nga xam ne amoon na ci réew mi dafa jàpp ne ndaw ñi nga xam ne amuñu liggéey am ay jafe-jafe ñoo wàccoon ci mbedd mi moo tax jamono ji seeni jafe-jafe mu bëgg ko saafara yéene na ñi nga xam nga xam ne tegoon nañu loxo ji nag amal nañu ab dëj maanaam deuil national la njiitu di président Macky Sall daa di nag ci alxames ji yéen a gi de na li nga ne mooy drapeau yi dañu koy wàccee ci dëj Sénégal dafa sëngeem yéen gi nee na ñi nga xamante ne ñooy mouvement pour la défense de la démocratie ñoom suba ci àjjuma ji la amal seenub deuil national ci réew mi réew mi Quotidien moo xëy di ko xibaar yéen a kaay gi di Vox Populi xëy ci capitaine Omar Touré mi nga xam ne jamono ji aw turam ñoo koy jàbba nag mooy capitaine Omar Touré moom nag nee na daal dara dalu ko maanaam doful june jàpp ko fan laaxalu ko li nga xam ne moom la nekkee lépp ànd na ci ak sagom te lu ko ci fekk mu jël lum si góobee gar ko lum ci boxam yéey yéen a kaay gii de la témoin nee na capitaine Omar Touré jamono ji ñoo koy wër waaye nag wëruñu ko ngir nag arrêt de rigueur wala ñu wër ko ngir teg ko ay daan dañu ko wër ngir nag yóbbu ko ci hôpital psychiatrique ngir na xool ko ndax bu ñu sukkandikoo ci la témoin ci ay xibaar yoo xamante ni jóge na ci gendarmerie mooy kii nga xam ne mooy capitaine Omar Touré maanaam dañoo jàpp ne daal àndul ak sagom boppam ndax officier la boo xam ne maanaam bu xarañ la un brillant officier kon nag Omar Touré bu defee lii ñi dañoo jàpp ne daal dafa am ay jafe ci lu jëm ci wàllum xel yéen a kaay gi de la sa ñu xëy fekk fa Massiré Touré mi nga xam ne mooy baay bu ndaw bu Omar Touré maanaam moo ko yar daat nay wax ne Omar ni nga xam ne moom lañ ko yare ak ni ñu ko xamee woon wuute na Omar mi moom la ñuy dégg baay ji nag nee na Omar ñaar moo mën a Omar dafa feebar wala nag dañu ko jàpp mystiquement maanaam dañu ko liggéey ki nga xam ne mooy Omar benn at jàpp juróomi ati kaso yéen a kaay gi da la témoin nee na Omar Touré nag maanaam place am du kaso waaye nag jamono ji jàpp ko xool ko ba xam dafa am wéer di xel waaw wala déet Omar Touré na askanu Sénégal yéen lay waxal dara daluma buñ ma jàppee ba pare leneen lu wax sama ginnaaw concerné wu ma waxi kasaw kasaw la yéen a kaay gi di réew mi quotidien xëy di ñu xibaar naan ñu njiitu réew mi di président Macky Sall ginnaaw bi mu jëlee couvre-feu bi 21 heures ko zéro heure maanaam minuit état catastrophe bi nekkoon ci réew fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru mars 19 mars su ko defee waxi couvre-feu moom kenn du du ko waxati ci réew mi yéen a kaay gii di Vox Populi xëy di ñu xibaar naan ñu dogal yi nga xam ne Macky Sall jël na ko lii nag mooy defal ñi nga xam na ñooy ndaw ñi yéen a kaay gii da la témoin ak le quotidien nee na Macky Sall ma ngi njaay cekki ñi nga xam ne ñooy xale yi nekk ci réew mi yéen a kaay gii di xëy di ñu xibaar naan ñu manifestation yi nga xam ne amoon na ci réew mi RFM Mbacké ak benn station service total bi ñu yàqoon am na lu toll si juróom-ñeent ñoo xam ne jàpp nañ ne ñoo ko yàq mandat nañ leen dépp niki démb sa Jurbel yéen a kaay gii di Sud Quotidien xëy xibaar naan ñu étudiants yi nga xam ne ñoo nekk ca université Gaston Berger niki démb nag amal nañu bëccëg boo xam ne dañu doon ñaanal ñi ñàkk seen bakkan ci manifestation yi ba pare nag di sàkku ñi nga xam ne teg nañu leen loxo ñu daat leen di bàyyi maanaam otage politique yi yéen a kaay gi de la témoin xëy yóbbu ñu diwaanu Casamance nee jigéen ñi nga xam ne ñoo nekk bois sacré ñoom nag daat nañuy dànkaafu daat nañuy avertir nee nañu képp koo xamante ni dugal nga sa loxo ci li nga xam ne mooy complot bi ñu def Ousmane Sonko maanaam di nga way mbay di nga ko lan nga doon jéem a comploter Ousmane Sonko réew mi quotidien nee na jigéen ñi nekk Bois Sacré ñoo ko xamle te nee na ñu Ousmane Sonko laalewul benn yoon ci li nga xam ne moom la ñu koy tuumal a kaay gi di réew mi quotidien cadre yi nga xam ne ñoo nekk ci Benno Bokk Yaakaar ñoom Ousmane Sonko la ñu tuumal nee na ñu mbooleem li nga xam ne ay manifestation la ak lu ci mën di am Ousmane Sonko la Mamadou Diop Decroix nee na xeex bi nga xamante ni jamono ji sumbu nañu ko maanaam xeex bi dafay wéy xeex bi dafay dog di commencé Mamadou Diop Decroix ñu laaj ko na ko waa léegi xeex bi moom pacifique maa ngeen koy def lu ànd ak ak dal Mamadou Diop Decroix ne Macky Sall mooy tànn maanaam pacifique wala violence Macky Sall daal bu dee nag jubbantiku na mën na ñoo def ay mobilisation yoo xam ne pacifiquement la ñu koy def waaye nag Macky Sall bi nga xam ne lancé nañ ko ko su lànkee kandaare ba ñu ko comprendre bu boobaa nag lu mu gis rek maanaam na xam ne moom la jamono ji Mamadou Diop Decroix nee na arrière moom du ñu ko def rupture changement la bëgg te ndaw ñi jamono ji fabu nañ ba pare du ñu deltu ginnaaw ci mbir mi en tout cas li am daan ñu syndicat autonome des médecins du Sénégal ñoom nag dinañu amal ñaari fan yoo xam ne dañu koy gréw ndax ñoom nee nañu sonn nañ tay nañ damm nañ dee nañ ci jafe-jafe yi nga xam ne moom la ñuy dund trop c'est trop yéen a kaay gi di stade xëy duñu xibaar naan ñu ak Idrissa Gana Gueye qualifié nañ ci quart de finale yu Ligue des champions yi yéen a kaay gi bu Messi ak Juventus bu Cristiano Ronaldo élimine nañu leen ci ci bokk de finale